sonal. waaw. maa fii. rek laa dëkk sori ma ci kon mi laa dëkk. ah yow tamit nag augmente valeur de la femme. ah waa ci yoon sonn naa de. waaw jàppal la rek ñu dem. waaw jàppal ma ñu dem. pourtant man fii laa dëkk de. ah sori woo ci kon. mu ngi ñëwee yàggul. yaa ndox bi de li ci des bariwul mais lii di nga ko mën a utiliser. waaw gëm naa dinañ ko mën a tooyal bi. doole metti na chaque jour yaa ngi dang dang rek. si jaay si sa jaayum beñe bi pour rek mun ñoo dundal yow ak sam papa yasin lii du dara jamono mo metti dëgër ku ne tal sa bop ken mu dimbali tew ken ndax ken tanewul ken gis nga lima may def ni xeebuma mako te ma ci dépenser ñaat témèr témèr bima ci am na mënul joxe dépenses waye mën naa mottali dépenses mo gën ngay wër di taxawalu di lepp di ab nit ñi dila xamal te duñ la fajal yalla li dina tax gëna gor gor lu sama jang parce que gis na li ngeen di daj yépp ci biir kër gi yasin lool boko ko ma gëm la ndaxte yasin yow am nga jom deug deug am nga jom te am nga la ndaxte ñu ni ci vacances mënon nga ma taggu dem plage wala nga dem ndax ndaxte say morom rek ñoko fi def waye luma soop yaang ci ak man ba bu may juk do do takaliko man gëm na ne yalla baxna te incha allah li ngay bëgg di nga ko am gis nga euh, Yacine gis nga jamono ji yàlla bu la mayee wérgu yaram pattoo laggi woo bul xeeb dara muy jaayum gerte muy fóot bi muy paase bi lépp looy def rek ngir mën a indil sa njaboot ñu mën ci suturlu jàppale sa borom kër def ko sa àdduna yàggul yàlla baax na seen kër gi. eh kontaan naa de. ba ba ba ba ba ba. ba ba ba ba ba. yow Constant kii kan la. kii de ci biir bi la ma fekk ni ma jàppale gaz bi nga dugg ko ci gi. dugalal gaz bi. waaw lii ma ko de. mooy xale yi nii. moo de nii. àdduna nag nii la ñu mag ñi nekk ci koñ bi. dinañ léeg-léeg ñu ñu ñu aw di di di di di leen yee ci jamono ngeen dëkk ci jàmm. waaw waaw yow nag kii France mi. dafa sob dafa sob lu ne laa koy wax. dégg nga jamono bii dafa toj. boo yi dañoo garaaw dañuy repérer xale jàmbur yi dégg nga foog doxandéem rek dugal ko ci biir kër gi nag yow tamit temps bi nag yow tamit si. wóorul te loo def yaa ko tey yow. dégg nga fi mu doon tabaski ji daa ñëw xam ne tabaski jàmm bi rek la ñuy yóbbu eh non. fii ay ay jigéen a fi dëkk bul dugg kër jàmm. dafa wóorul sax. eh génn. baax na yow. waaw waaw ñëw rek ak yow ci àq dëkkandoo. waaw waaw waaw dëkkandoo daal jàmm ca gën ñu dégg ko. baax na baax na baax na. non non baax na waaw waaw waaw waaw. Mourou Mbaye da ngaa dof da ngaa yëg. Mourou Mbaye yëg nga ne da ngay ñibbi tey. non déedéet da ngay ñibbi de. déedéet ni daal Mourou Mbaye yow Mourou Mbaye da ngaa dof. xanaa yaay jël boobu. lu lay jël. bi nga jàpp si noonu si kaw Mourou Mbaye ma yor sa kër ga magum jëm man may sa nijaay nga naan mag da am kenn. danga may jox mindaan bi nag booy ñëw nag ñu àndaale nag ñu ngondal si nag nijaay ngonalu nag fii man ma yor sa yumpaan ca kër ga nga naan ngonal ñii ma doon ñëw di waxtaan ak moom ci ponki àq dëkkandoo ngay àq dëkkandoo yi neex na de àq ba si yëre dëpp weññeeku jëm ca kanam hmm. Mourou Mbaye da ngay ñibbi tey bu ma ñibbee tamit ma wax li xew kon yëpp may toog am lu ma yóbbu dëkk ba sa xar mi sax du ma koy yóbbu dëkk ba yow da ngaa doog bay laal sama xar ah kon moo wax rek Oni dai. So if I don't like you, what I eat. More like.